jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ba tey si sunu seen bi di live Dakar 221 gan nga si page bi daatil abonné partage like vidéo yi baax a baax moom kookee di El Malick Ndiaye mi korek dénk rek wàllum transport bi dem bi ki dikk bi fii si réewum Sénégal moom nag jamono ji rek si wàccaayu tabaski gi na na ji rek la doxantu woon foofee sa garage bu mag ba foofee sa ba marisé la demoon rek daa fay amu doxantoo lam fa demet lam fa gisit la laati mudik kàddu di ko xamle mu du certaangeek parce que nga xamante rek jàpp nañ na ñiy transporter nit ñi daati nañ lu yokk rek li nga paas surtout nag si ñuy dem fa xamante ne si na moo di sori ndax fu ndaan daan paas fi nga xamante ne si na moo di sept mille cinq cent yokk ba rek ba quinze mille wala sax ba vingt cinq mille mu doon ay différence paas yu xamante ne si rek askan wi si kaw askan wi rek lan ko daatee gàllaat ba tax rek moom kookee di El Malick Ndiaye daat fay dem rek waxtaan ak ñoom di leen ñaan nag ak si njëkk wala rek ñu daal di xoolaat ñoom it seen xool bu baax a baax rek ba tax ñu daal di wàññiwaat li nga xamante ne moo di paas yi ndax loolee rek la daati sàkk sa ñoom te la su loolee tamit la bëgg si ñoom ndax nag moom jàpp na ne ndax loolee bos ko yokkee si kaw askan wi rek lay gàlluwaat si kaw góor góor yi rek lay daatee gàlluwaat di muucu rek li nga xamante ne si ne rek moo di alol askan wi ginnaaw bi nga xamante ne si ne tey it dégg na na bataaxal bu neex rek ñu ne daati nen wàññi rek li nga xamante ne si na moo di dund bi mu ceeb bi ah, sukkar si diwlin si ba si mburu mi ñu na rek daati nas koy wàññi jam sax ba wàllum données mobile yi des nañ ko wàññi waaye nag la sa des mel na nag kookee di Almaañ Njaay xam la na rek ginnaaw wàññi nañ loola rek lii di mbirum transport paas bi nag ñu daat koy daal yokku si jamono yi tabaski gi mu doon lu metti lool ba tax na rek kookee di Almaañ Njaay di sàkk su ñoom ñu taxawaat xoolaat bu baax a baax seen taxawin bu xool rek naka la ñuy def rek ba wàññi waat li nga xamante si moo di paas yi ndax rek paas yi daan na seer lool si ñi xamante si na ñoo di ñibbi fu sori si jamono